da wax ne li waral sangu farata yett la benn ba mooy jigéen ju amee woon baax muy regal bam jeex war sangu farata ñaareel ba mooy jigéen ju amee woon dereeti wasin ba mu jeex ba tey sangu farata ñetteel bi nag mooy janaaba mu ne janaaba nag dañ koy def yaari wàll genn wàll gi mooy amul sax jotek góor jigéen maniyu génn na andak ak bànneex boo xam ne daana ko génne ci yaram wala fonante wala sax xalaat bu yag yag wala xol bu yag yag yépp man na genné man yu ke genn ga ànd ak bànneex saa yu mën yu génnee te mel non nak sangu farata daldi war bu man yu daa génn ci nelaw sax moom duñ ca takk kooko yëg na koom yëgu ko am na ci bànneexam amu ca bànneex ndax kuy nelaw moom mënta takk ay mbiram waaye bu fekkee ne daal kooku nelawut moom su man yu génnee ci moom lay tax sangu farata war ko ca mooy mu ànd ak bànneex te doon ba ko daan génne naka jekk su man yu ma génnoon te àndut ak bànneex ni ki jiit fett ko rek mu génn jàpp may toj ak war ko raxas ndax sobe la waaye sangu farata waru ca su man yi génnoon ànd ak bànneex waaye boo bànneex moom bokk te bu ko daa génne ni ki jurgóotu mi ñu waxoon loolu it toj njàpp rek ak war koo raxas waaye du waral sangu farata waaye lii ñu tudd léegi nag bu jotee sax ci sawukaay waaye bànneex ko génne bu ko baaxoo génne ndax laalante ci yaram ak xalaat bu yàgg ak xol bu yàgg yépp mën na koo génne bu ko yooyu génnee nag sangu farata dal di wax ñaareel bi nag moom mooy bu awra yi góor gi demee ci jeneen awra duñ ko takk ci góor dugal bopp sawkaayam ci sawkaayu jigéen donte sax dafa dugal bopp sawkaay ba ci buntu suuf mo xam buntu suuf ba bu góor la wala bu jigéen wala donte sax dafa dugal bopp sawkaay ba ci leneen loo xam sax du doomi aadama niki am xar wala bay ak sax donte loolee daa fekk mu génn àdduna fekkutoon muy dund saa yoo xam ne daal bopp sawkaayu mukallaf mi dem na ci awray keneen mbaa leneen rek sangu farata dal di war duñ ca seet ba xam ndax dara génn ci man yu mbaa dara génnut li tax sax ñu naa su bopp ba duggee dañoo jëlale bu lépp lépp duggee moo tax ñu naa su bopp ba duggee rek sangu farata dal di war ku tëdd nag gént mel ne kuy jote jote góor ak jigéen waaye taxul nag dara génn ci moom dara waru ko ca su dara génnoon nag sangu farata war ko waaye ndegam gént na def jote boobu waaye taxul dara génn rek kon sangu farata waru ko ku gis nag ci ay yéeréem ba fu muy tëdd loo xam ne wóor na ko ne man yu la te it daa yëgut waxtu mu génn ci moom waaye ci moom lay war a génne ndax yére ay yéeréema mbaa fam ko gis ci lal ba moo fay tëdd kon dagam xamul waxtu mu génn ci moom day sangu farata ba noppi nag seet nelaw yam mujj nelaw te lu mel noonu xaj mu seet jul gum fi juliwaat rek bu sangoo farata ba noppi mu baamuwaat ko mel mu xaar ba jot mu wis ci tuwayam ba fa muy tëdd loo xam ne na ko ne man yu la te ci moom la génne waaye xamul nag kañ la génn kon day seet ba xam ya nelaw yu am doole la mujj nelaw yoo xam ne loolu mën na caa génn mel ne mu gis ne moom daal ci guddi gi rek la nelawoon nelaw yu deme noonu kon day sangu farata ba noppi nag baamuwaat julik suba baamuwaat julik tisbaar su fekkee ajjuma la woon aljuma la julli woon mu baamuwaat ko muy tisbaar su fekke julli woon na takkusaan itam bu sangoog nag baamuwaat takkusaan waaye nag la jiitu woon nelaw yooyee moom du ko faale na seet rek li mu fi jot a julliwaat ci gannaaw nelaw yu diis yooyu nga xam ne loolu xaj na ca